mooy mooy waajur waqatiyaatu rahim ak dagg mbokk bunt a dafay jàngal ne dagg mbokk dafa xaraam dog mbokk ak dëngee sa waajur de dëngee waajur nag mooy lan mooy lépp loo xam ne nii man nga koo def mu neex sa waajur te du moo yàlla nga bañ koo def de rek dëngee nga ko waaye lépp loo xam ne nii man nga koo baax mu neex sa waajur te moo yàlla nekkut ci nga bañ koo baax loolu mooy waaw dëngee waajur de lépp luy tàngal xol waajur moo xam jëf la wala boog bala bu dee boo ko bàyyee dana tàngal sa xool dana tàngal xol waajur defal bu dee du moo yàlla bu fekkee boo ko jëfee dana tàngal xol waajur baal dégg bu dee du moo yàlla bu dul loolu yaa ngi dëngee sa waajur say waajur bu ñu bëggoon kaasu café sax nga tàngalal leen kafe nga bañ ne doo leen tàngal café ñu mer dëngee nga waajur xam nga tàngal café ñàkk tàngal café du jaamu yàlla waaye nan neex na waajur rek léegi mujj na nekk jaamu yàlla foofu la yàlla teg waajur yi kon doom dafay topp waajur xale yi nag léegi mag ñi ci boppam ñoo leen wax naan njabootu seeg njabootu kanaar la bu ko benn xale nangu ku jiitu sa jur ak xal ko njabootu seeg njabootu kanaar la danga leen bàyyi ñu jiitu nga topp seen gannaaw ay xale buñ jiitoo ah, xam nga musiba bu ne hmm? mag ñi ñooy jiitu xale yi topp seen gannaaw yow xale bi boo nangoo sa waajur jiital la mënul laa wax sax sa bët bi suufa ci topp sa gannaaw nar nga alko xam na loo xam ne bu ñëwee balaa waajur wi ñëw fekk yàqu nga ndax boo jiitoo mën ngaa dugg si oo xam ne sa waajur yëguñ ko mën ngaa def luñ yëgut musiba yu bari dal la ci balaa ñuy ñëw fekk lii xew xew na ba pare kon doom day déggal ay waajur muy yaayam ak baayam yaay nag moo gën a foor ci doom waaye warul tax nga sànni sa papa ñaari ñëpp nga war a fonk xormaa mm-hmm. leen ñoo xem ci yow ndax ay waajur lañ mbokk nag dog mbokk mooy lan mooy nga téye sa lu baax ci sa mbokk te man ko koo defal lépp loo mën a defal koo xam ne nii sa mbokk la bañ koo def rek dog nga mbokk loolooy dog mbokk bi ci gën a bon nag mooy mbakk ko dagg ko carrément sànni te man koo jokk loolu mooy li ci gën bon loolu la bunt bi di aaye mbokk nag du mooy koo bokk ak yaay ak nangam nangam ngeen jege wax naa ne koo xam ne seen ju téeméeri maam yi mbokk lañ sax sa seen mbokk la mbokk gisoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma ngay fonk misra ndax lan ndax yaay ismaila ci misra la jógee ismaila ak yonent bi ñaata maama ci dox waaye waa misra yaay Ismaayil ci ñoom la bokk waxuma sax mbokki Haajara yi de waaye wa ku dëkkati misra yonent nee na sama mbokk nga ndax sama maam Haajara ci yéen la bokkoon kon mbokk gën naa yaatu ni ngeen ko foog su boobaa koo gis rek teral ko ndax koo gis rek mën naa balaa yàgg seen maam yi loolu da ci jàngee ne koo bokk ak sax mbokk la ndax sa yaay bokk yow yonent bu dee maamam maamam maamaatam maamaatam ba ci Haajara moo dëkk Misra rek mu fonk waa Misra ba ne saxaaba yi da ngeen mos a gañe da ngeen ko ubbi xewagut gaa waaye dana xew bis bu xewee na fonk waa Misra ndax ay mbokk lañ kon yow na koo bokk ak dëkk sa mbokk la gis ngeen du mbokk yaatoo bu ñu wax dog mbokk nag yooyu yëpp ci la dugg xaala wax na allah yàlla taala kawe na mais faalansaytum amaana yéen laay ji jàngoon nañ ko mm-hmm. in tawalaytum bu ngeen faloo ba am doole wala in tum bu ngeen gëdd alquran wan ko gannaaw an tusidoo ngeen yàq fil ardi suuf wa tuqati'u ngeen dog araamakum seen i mbokk am na ñoo xam ne comme xaj bu xiif lañ mel xaar lu mooy doole rek pour fàdd ñu ñu war a fàdd boo leen yefalee sax yow mi mi leen buñ suuree mm. sa kaw ñu njëkk dal am na ñu mel noonu ñooy ñu ñàkk ngor yàlla ne am na ñoo xam ne bis bu ñuy am doole la njëkkee mooy dagg seen mbokk ya sànni fële di yàq ci kaw suuf di saare moo yàlla def lu leen neex te wuñ ci dara ndax am nañ xaalis am nañ doole dara manqué wu leen yàlla yàlla musal ci ñooñu wala yàlla bëgg a wax ne bu ngeen wanee gannaaw alquran amul sikk ne yàq rek ngeen di def ak dog mbokk kon foo ñu jàpp ci alquran bu dee bañ nañoo yàq ulaayika ñooñu la gaay alladina mooy gaay yi xam ne allahu buur moo di yàlla faa sama mu tax loo leen ba duñ dégg dëgg waa maa mu gumbuloo ab saarum seen bët ba duñ gis dëgg waxaal waxaat na taala yàlla moo kaw mi ne walladina ña nga xam ne yan xuduna dañuy firi adallaayi kóllëre yàlla min baali misaaq yi gannaaw ak fasam ñi nga xam ne dañuy fecc ci kóllëre gañ kóllëre wantoon yàlla gannaaw buñ ko fasee ana lan nga kóllëre wantoon yàlla mooy keroog ba mu waxee ne alastu bi rabbikum ndax doonuma seen borom ñun ñëpp waxoon ah kay boo ñëwee ne di jaamu keneen ku dul yàlla fecc nga kóllëre wa yaqta'uuna ñuy dog maa amara la di na allah yàlla bii ci moom an sola ñu jokk ko muy mbokk geeg jaamu yàlla yi yàlla bëgg ñu jokk ko daal ñoom ñoo ngi koy dog wa yufsiduuna ñuy yàq fi suuf ci moo yàlla ak ci ulaay ka ñooñu leen allaanatu rëbbam yàlla ñeel na leen suu daare kër gaa moom mujj gu bon la kër gu xam ne nii mujjëm gu bon la moo di safara moo leen ñeel yàlla incha allah kon dog mbokk day dugal nit safara waqaala wa taala yàlla mu ko mi waqadaa attena rabbuka sa borom maanaam digle na ne allah taabudu bu jaamu illaa iyyaahu mooy moom jaamu yàlla rek la war na ngeen rafetal bil waalidayni si ñaari waajur yi ixsaanan ak rafetal yàlla ne na ngeen rafetal bu baax seen i waajur imma yablughanna bu jotee nag indaka fa yow alkibara mag ahaduma kenn si ñoom ñaar aw kilaahuma wala ñoom ñaar ñëpp fala taqul bul wax lahuma ñeel leen ñoom ñaar uffin xat naa ci yéen wala tanaanuma bu leen leen gëdd bu leen leen yuuxu waxul waxal la uma ñeel ñaari waajur yooyu xawlan wax kariman yaa ji tedd mooy wax juy seddal seen xol bépp wax juy seddal xol waajur rek defal waaye wax ju tàngal xol waajur moom moytul wax fit wàccee la uma ñeel la ñoom ñaar janaa zulli mbagg yaa moom toroxal sa bopp la wàccee sa bopp mine rahmati ngir yërëm leen ah fii nag lu bëriñ ci bu yàlla waxee wàccee la sa mbagg maanaam mu ngi la bëgg wax ne boo amee maqaama bu kawe daal di ku ca kaw ba mel ni picc muy naaw boo dajee sa waajur wàccal lu la yàlla yëkkati yëkkati lu sa maqaama kawe kawe lu sa daraja kawe kawe ba nga mel ni picc muy naaw ca kaw wàccal da ngay dégg léegi-léegi olof ne diw dafa saxi laa maanaam daal dafa am may léegi ma ngi ca kaw waaye boo demee bay sa xilaaf boo dee yëg sa waajur wàcceel laafee rek laa wax de maanaam may gu yàlla may mën a may na nëbbut sa kanam waajur na réer seen kanam boo dee ak ñoom mel ni ni nga juddoo woon xale bu ndaw boobu xamuwul woon dara dégg nga dégg nga na nga yore xal boobu waaye bul am may ba yëkkati sa bopp sa kanam waajur bu mukk na àdduna bu ko def de na nga wàccee sa bopp ngir yërëm leen mi nga rahmati ngir yërëm leen rawatina bu ñu demee ba màggat waajur bu dee xale moom bu dee ndaw màggatagut mën na laa wax defal lii bu def lii léegi-léegi sax mu forcé la waaye nag bu dee mag moom mënatul dara kooku yaa a jébbale sa bopp ndax léegi-léegi sax soxlaa mën a gis ndax dara jëlee yàlla ak yitte yu bëri yi nga nekk kon nag yaa war a jébbale sa bopp di dem di ko nemmeeku di ko defal lu baax lu la sant defal lu la teree bàyyi li ko fonkee woon na gën a yokku mhm. ndax léegi mag la dee leen ñaaral yàlla wutale ci ñoom mhm. lañ la defal yàlla defal leen ko ndax waajur du morom moo tax mu ne waxul rab rabbi borom sama irhamhumaa yàlla ngeen a yërëm kama rabbayaani comme ni ma yaree woon saxiiran ba may ndaw mhm. yàlla ni ma sama waajur doon taxawee ba may ndaw yàlla nga leen ko taxawee ñoom ñaar xam nga ne waajur du seetaan doomam mukk muy sànku te doom ji lu koy sànk rek lay def bu nekk xale mu ndaw mën naa gis safaran daw ne da koy jàppi waaye waajuróo du ko ca bàyyi mën naa yëg ci kaw lal daw ne ma nga dafay daanu ji yoonam nekkul ci waajuróo du ko ci bàyyi lu xale bu ne lu koy xalak rek lay def waaye ay waajuróo ma ko sàmm taxawu ko bañ nekk mag yow di yàlla sam samay waajur comme niñ ma sàmmee woon niñ ma yërëmee woon niñ ma doon toppatoo ba may ndaw yàlla nee na dee ko ñaa waajur loolu mooy mënoo leen a fay waaye ñaanal yàlla mu wutal ci ñoom ñu ñëw ci xadis yi mu ne waan abi bakra jëlee nañ ci abu bakra nu fayu bun xaaris nu fayu doomu xaaris xadis bi jàngoon nañ ko ci buxi ba qaala mu ne qaala wana rasulullah yonent yàlla bi salla yàlla doolu xew allah wala alayhi moom wasalama doolu ko musal yonent bi daf ne alaa unabbikum ma ndax du ma leen xibaar bi akbaril kabaayir yi ci bàkkaar yi gën a màgg salaasan ñett yoon la wax lii pour rek saxaaba yi bàyyi xel ci li muy wax ndax li muy wax ñor na ko te lu ñor yonent bi rek jar naa bàyyi xel yonent ne manax du ma leen wax bàkkaar yi gën a màgg manax du ma leen xibaar bàkkaar yi gën a màgg manax du ma leen xibaar bàkkaar yi gën a màgg xam nga saaba yi waaw kay rek lañuy wax xul naa ñu ne ko balaa ankay yaa rasulallah yonent yàlla soxla nañ ko xaala mu ne rislaa ko bokkaale billaahi ci yàlla mu ngi sukkandiku mu ngi loxo yi na leen bokkaale yàlla boo xooqul waal dana ak dëngee ñaari waajur kon dëngee ñaari waajur bàkkaar bu màgg la sa waajur du yaa ko tànn yàllaa la ko tànnal ña la waay ña la yàlla tànnal téye leen fonk leen xamal ne nag mën ngaa am yàlla ci ñoom waaye mën ngaa ñàkk yàlla ci ñoom du nit mooy tànn ay waajuram nit ku nekk yàllaa koy tànnal ay waajur lala yàlla tànn tànnal gërëm ko xormaalal waajur yooyu dafa am ci nit ñi ñoo xam ne ni yàlla dafa leen joxañ ne ñii fonk leen mm-hmm. boo leen fonk rek fuuti waajur ci la bokk sa sëriñ ci la bokk mm-hmm. ku la mag ci la bokk mm-hmm. màgget ci la bokk miskin bi ci la bokk sa buur ci la bokk say kilifa ci lañ bokk dafa am ñoo xam ne yaa dañ leen war a fonk bul jaay rëy mukk wala daraja wala garaat seen kanam même boo leen ko ëppee moom la bàyyi wax ci benn waxtaanam wala defe naa waaw mu ne imam Buseyri moo ëpp maqaama sëriñam Abul Abbas al-Marsi mooy sëriñu Buseyri Abul Abbas al-Marsi moo doon wax ne su ma toogee benn génnantu gisuma yonentu sallallahu alayhi wasallam jàpp naa ne doonatuma julli benn waxtu boo xam ne nekkuma di gis yonentu soo amee sama dund rek murtad na génn naa ci lislaam foofu la tolloon ci yàlla daaw tàqalikoo yonent bi mukk koo xam nga maqaamam kawe na waaye buuseeru ci barkeeb tagg yonent bi sallallahu alayhi ci barkeeb bëgg yonent bi ci barkeeb jegeñ la yonent bi buuseeru dem na ba ëpp maqaama sëriñam waaye bàyyi nee na boo demee fañ leen denc nit ñi abul abbas almarsi la ñu gën a ziyaare ci buuseeri mu ne buuseeri moo dàq nit ñi yebal leen ci raw da sëriñam bu leen yaakaar ne wali yi dafay dee rek moom tuut dara wali yi dañuy soppandikoo gannaaw bu ñu génnee àdduna nañu doon soppandikoo ba ñu dund waaw mm. bu fekkee ci may ak yow yaa ngi def su jëf matagul yàlla may la nga mën a def tasaruf mën a def karaama boo demee ba sa jëf yëpp mat nag nga dem ci kër teraanga fa la karaama gi war a mën a yokkoo waaye dafa am ñu dof ñoo xam ne yaakaar nañ ne soppanduk bi ci dara jaay nit ki la moo tax ne wali yi bu dara wali yi musul man dara wali ñàkk man daraam mooy man daraam moom dafa tële lépp yàlla téyel ko te yàlla dara tawu ko moo tax bu génnee àdduna la gën a aay mooy tur wali yi bu fi jóge keroog la gën a ay bu muy dund Buuseyri moo dàq nit ñi dem leen sama sëriñ ngeen ziyaare ji ko moom mbooloo mu tuuti ñoo koy ziyaare ji soxlawul loolu ndax te adduban ma cheikh yi ndax am yar ak teggin ànd ak sëriñam te dem na baraw sëriñam kon dafa am ñoo xam ne da ngay am teggin seen kanam teggin dafa baax ku ne joxuma kenn teggin kenn joxu ko teggin ku ne faalewuma kenn kenn du ko faale ku ne ku ne man toppatoo ma kenn kenn toppatoo ku ne sama bopp rek jàppale nit ñoom ñ seen bopp rek loolu whatsapp bi ñoo ma ko jàngal xam nga whatsapp fu mu nekk nii boo yoree sa sa whatsapp nii def affaire boo xam ne nii yow sa message kenn du ko lire yow it doo lire message nit ñi pourtant ñoom defuñ de da ngaa def rek ñu delloo la ko te yëguñ delloo nañ bu dee sa statut kenn mënu koo lire maanaam sa statut ku ko liir doo ko xam yow yow koo lire statut du ko xam xam nga mën ngaa def loo xam ni koo lire statut du ko xam boo koy def si sensé rek yow it bu nit ñi lire sa statut doo xam. yaa def loo xam ne ni tey bu baaba estate woon nga liir estate baaba baaba du xam ne yow liir nga estate ba mu ko defee rek yow it boo liiree sama estate man mënu ko xam te naa yow defoo dara loo def nit ñi ñu delloo la ko li nga mel rek la ne yàlla di fay ñoom defuñ daara waaye la nga def dëppaat na ci yow li nga def dellu siwaat na ci yow waaw hal jazaa'ul ihsaan illa al ihsaan kon boo ne faale woo kenn amoo kilifa yàlla tàggat yow tamit kenn du la faale doo nekk kilifa kenn boo ne sama bopp rek laa bëgg bëgguma kenn yàlla def kenn du la bëgg nit ñi tamit bëgg seen bopp rek ba xam attan nga loolu wala déet kon waajur dañ ko war a fonk du morom waajur du xam-xam mooy tax mu war a nekk sa gannaaw loo bari bëri xam-xam sa gannaaw waajur nga war a nekk du alal ju bëri moo tax sa waajur neeru nekk sa gannaaw lu sa alal bëri bari nekkal sa gannaaw waajur du ay ndomba tànk moo tax say waajur nekk sa gannaaw lu sa ndomba tànk rëy rëy nekkal say gannaaw waajur du nekk wëlli yàlla sax mooy tax sa waajur nekk sa gannaaw même boo dee wëlli yu même bëru yonent sa nga war a xormaa say waajur hmm? amut may gu man a tax nga sut say waajur amut de noonu la nit war a fonkee ay waajuram ku la génnee ci fonk ay waajur nag say waajur nag kooku baaxut kooku baaxut waajur bu dee dañ ko war a fonk rawatina julit yonent ba mu wax ñaar yi wakaara nekkoon ne mu tekki andi aji sukkandiku mu ne bokkaale yàlla ak dëngee waajur ñooy bàkkaar yi gën a màgg boobu dafa sukkandiku fa jarasa mu toog nag bu baax ndax la muy wax dafa am solo lii muy wax li mu yàq ci àddina kenn xamunum tool fa sa mu toog fa xaaw mu ne alaa yëgal wa qawlu zuur ak waxi fen alaa yëgal wa shahadatu zuur ak seede ay fen yii am na bàkkaar yu ko gën a màgg waaye lim mën a yàq dara mënu ko yàq fen fen lim yàq ci àdduna dara yàqu kon wax fen wax wax joo xam ne ay fen rek la seede loo xam ne ay fen rek la ci bàkkaar yi gën a màgg la bokk xam nga fen nag neexut moo tax xam ñu ne jullit du fen am na hadis yu ko wax di la dégg hadis bi jar naa xool waaye daal am na hadis yu ko wax ñu ne jullit du du fen ndax li nga a bon mooy yow yëgoo fekkewoo defoo taqoo laalewoo benn waaye ñëw waxal na loo xam ne yàlla xam doy diw nangam diw nangam diw nangam diw nangam diw nangam te la muy wax yëpp xamu ci daara ay sos la fen la jël image bu bon boobu jaay la ko te nit ñi di la xoolee image boobu teew meloo noonu ñuy jëflante ak yow jëflante bu ñaaw te fekk yow jéewaloon jéewaloon loolu loolu ci lu gën a bon la bokk boo bu la méttu dañ la ko defut fen fen ci gën a bon la bokk imagineel boo gisoon kilifa gu baax gu ragal yàlla gu jub gu baax nga dem ne waa ah, gis naa ko muy muy njaalo xam nga yàq nga dara maanaam affaire bi dëgg la am du dëgg moom moom deram yàqu na te sax dana am nit ñi ne ah mën naa am dëggal de parce que ñii nga gis nii ñoo gën a bon ñëpp ah naa am ñoo xam loolu la ñuy wax parce que liñ ko tuumaal moo rëy te pourtant moom wallaay jegewul sax li ngay wax nga tuumaal ko jikko ju bon jooj nga tuumaal ko jëf ju bon jooj te fekk ay fen kese la balaa muy leer am naam amut fekk yàqal na ko lu bari yàqal na ko ay nit yu bari jaxase na ko ak mbooloo mu bari fen baaxut jullit nay wax dëgg lépp looy wax na nekk dëgg yonentu nag doon na wax ne kafa bil mar'i kaziban an yuhaddisa bi kulli ma samia danañ ko jàngaat fii te yonentu da daan tere xiila wal xaala mooy nettali lu la leerul doon na wax ne doy na rek fen loo dégg nettali ko que lu bari ci lii nit ñi di wax du dëgg chemin yi daan wax ne balaa ngaa xam ne nit ñi ñoo mën a sos ñuy wax ci loo xam dara bu ñuy wax ci loo xam ne xam na si dara da nga xam ne nit ñi fen lañ na danañ yokk di ci yokk di ci yokk yow da ngay di ree rek parce que da lay wóor ne li dara du ci dëgg mën nañu wax nag lu niru dëgg mais dañ cee rax ay fen wala nañ koy waxee demeewul noonu moo tax nem mbir mi noonu la mel bul dégg rek nettali loo dégg gëstul ba mu leer la ne dëgg la booy wax sànga loolu wax ñu xam ne li nga wax dëgg la waaye koo gis lu mu dégg nettali te wóoruwut gëstuwut ay fen rek la yóbbu ndax lu bari ci li ñu di wax ay fen la te bu dee loo dégg gëm ko xamal ne yow sax baaxoo ndax yóbbul nañ la nit ku ñu waxalut amut yàlla sax waxal nañ ko ay fen yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxal nañ ko ay fen benn waaye masuñ koo tàllal mikoro benn xare na ko loo xam ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñoom nag duñ tudd yonent gi duñ tudd sallallahu alayhi wasallam mais man maa ko tudd maa tey loo xam ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ne digg naa ko soxal la de day rey rek parce loolu lañ ko jaay ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam image boobu lañ ko jaay ne l'islam dina la xam ne nii dafay jàpp nit ñi di rey di xeex di nangam di nangam di nangam lañ wax day niru dëgg mais du dëgg ay fen la fen yooyu la waa Màkka doon yóbbul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day day dog mbokk dafay njabar hmm? seet wax yu ñaaw daal yoo xam ne ni yàlla xam doone ñu waxal ko ko ba nit ñi nga xam ne ni ñi nga waroon dugg ci lislaam mën a ragal moo tax fen baaxul fen baaxut boo bëgg ñu defal ñu fenal la nag bul fenale ñaare du mooy seede fen na la waa ji li mu wax dëgg la nga ne li mu wax du dëgg nga ne maa ko maa ko fekkee fekkee woo dara ñaar am nañ problème dañ dem tribunal mu wóor na la sa xarit bii moo tooñ bëgg jël alali jàmbur nga ànd ak sa xarit sosal ko fenal ko ne moo nekk ci dëgg bañ àtteel ko dëgg mu jël alali jàmbur yow xarit boobu boo bëgg nga ko it da koo bañ boo yaakaar ne da koo jariñ da koo lor ndax tax nga mu lekk alali jàmbur ci lu dul dëgg yàlla di ko ci mbugal yawmal xiyaamati koo andi mbugalam yàlla koo dimbali si tooñ dimbale ko da nga koo lor seede fen nag naa fekk koy def xam nga nettali fen moom nit mën na ko def sa yaakaar nga ni mu wax dëgg la parce que fa dégg rek dem nettaliwaat waaye seede ay fen moom naa fekk rek koy def loo xam ne fen la nga xam ne fen la nga ne dëgg la xam nga ko dara nekkutul ci xol bi moo tax ñaar yi ba ko yonent di wax dafa jug taw pour moytuloo ko jullit ñi tribunal boo fa demee avocat yu bëri dañu xam ne seen client moo tooñ ñu dem di ko fenal moo tax loolu métier bu bon la woo mu avocat baaxut de lislaam jàngal na avocat boo demee ci siraaju salik dana la ko ubbil indil bunt mais dëgg ngay défendre mais avocat tey yaa tooñam tooñoo seen yoon nekkul nga leen fay xaalis rek ñoom ñu sosal la seet nuñ ko tourné ba génn la ci yow bu ñu la waroon tëj fukki at ñu wàññi ko ba muy juróomi at déedéet waaye loolu du dëgg fukki at lañ ko war a tëj nañ ko tëj fukki at la léegi sax nga nekk ci tooñ ñu dimbale la ba ba nga nekk ci dëgg loolu du dëgg yow mi def loolu yow mi métti wu métti boobu yaa ngi def shahadatu jour seede ay fen ci bàkkaar yi gën a màgg la bokk Famaazal dañu yu kër laa di mu baat bi ngir bàyyi loo leen ko xel waxi fen seede fen waxi fen seede fen hatta qullaa ba ñu wax ne lay taw yonenti kon moom sakkata mu noppi dem na ba saxaaba yi yërëm ko bëggoon mu noppi ndax baat bi ñaari yi dafa naqadi yonent bi sallallahu alayhi wasallam fen fen wax ko ak seede ko daf koo métti mu di ko baamu di ko baamu di ko baamu ba saxaaba yi bëgg mu noppi muttafaqun alayhi buñ dëppoo la وعن عبد الله بن عمر عمرو بن عاص يعني انت عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنه يعني على قرم لين النبي مجلس ينتبه صلى الله عليه وسلم الله على اسمه محمد رقم صلى قال ينتني الكبائر بكار مغي الاشراك بالله مو بوكال يالا وحقوق الوالدين البنجي نيا واجور وقتل النفس اغري بكن واليمير ان غني الخموس بو نور بروم السفر غن غوي نور بروم السفر موي غنيل فن ما ام ديغنت وور واخو دغ خمغ لول تبي مو نيما يالا دغ andi kaamil bi ma waat ko léegi andi kaamil bi billaay wallaay talaay te wóor na la waxoo dëgg daa ñu ñeme yàlla te ñoom duñu wax dañu gën a dañu naan andi kaamil bi léegi andi kaamil bi billaay def nga ko te wóor la ko day fen ngeen googu mooy yemirul xamus yonent ne si bàkkaar yi gën a màgg la bokk boo jaaxlee bu ñu tax nga dugal sa bopp safara xam nga nga war a jaar si yoon gis fa dëkk dëkk bu mu tax nga tëb dem dugg ci kàmb ak safara safara kay moo gën a métti dëkk nga jaar si mu jam la ko sekk ko moo gën nga dugg safara si dee yow am nga problème boo waxee dëgg gaa mën nga am problème waxal dëgg waaye bul dugal sa bopp safara boo gënee te dëgg yaa ngi dugal sa bopp safara yaa ngi mel ni ku gis dëgg bëgg cee mucc tax mu tëb dem dugg ci kàmb safara kooku daa alal boppam wala daa mosoo boppam al yaminul xamuus nag mooy ngëñ gudul dëgg léegi-léegi sax nit def ko te wallaay boo waxoon dëgg tamit tigge di toj maanaam du ko def dara li gën a rëy ci ñu ko mooy xas ko rek wala yedd ko muy fen boo xam ne billaay billaay billaay boo ko miinee ci xale rek boo màggee min ko léeg-léeg yaa gis xale taarif boo xam ne dafay def dara nga wax ma ko de te yaa ko def de barki yàlla def ma ko bilaay bilaay walaay talaay def ma ko waaw te fekk yaa ko def gis nga boo defee bu demee bëgg ñu des sa bëri nga wàcc ko nii xool xool noonu te ah. lox mu leer daal naxasaale ko nag moom bu lay tuumaal mu tuumaal la waaye na noppi rek yow bu dee mënoo wax dëgg noppi rek après wàcc sa bëri xaw ko xulli nii ah, kii kii kii daf dama soxor rek so dama bëgg dama bëgg taqal rek yooyu ngay wax moo gën day gën day gën loo xam ne wóor na yaa ko def ngëñ lu lu dëgg danger la rawatina magam jëmm nag ci mag la gën a bon hmm. ndax xale amul bàkkaar daa waaye dañu bañ màgg ci mu yaru ci waaye am nga xale bu màggee ci loolu mën na ko dugal safara xale moo amul bàkkaar mais magam jëmm def lu dul dëgg ba pare ñemee taaj kaamil di waat ne defoo hmm. yàlla dëgg nga kon yi mooy bàkkaar yi bi nga xam ne yaxlifu dina ko ngëñ kaasiban daa ji fen amidan daa tay summiyat tuddee nañ ko xamuusan li an ndax moom taxmisu day nuur day dugal al xaalifa aji gëñ fi ismi ci bàkkaar waxnu jëlee nañ ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ana rasulullah ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qaala wana wana waxnu jëlee nañ ci ku ñu jiitu Abdullah mu ne yonent bi nee na bokk na ci bàkkaar yi màgg yi mu rajuli saaga góor waal day ñaari waajuram nit saaga ñaari waajuram ci bakkaar yi gën a màgg la bokk ah xaalu ñu ne ko yaa rasulallah waaye sumu ndax dana xas arajulu góor waal ñaari waajuram ndax nit dana xas ñaari waajuram xaalu mu ne naam waaw yasumbu dafay saaga abar rajuli bàyyi góor fa yasubbu waajooju saaga abaahu bàyyam moom it wa yasubbu mu saaga ummahu yaayi góor fa yasubbu waaji saaga ummahu yaay boo saagaanil mu saaga la yow yaa saaga sa waajur dangay ngay am bàkkaaru ku saaga sa waajur ndax yow yaa def lu tax ñu saaga sa waajur kon nag boo bañee ku saaga sa waajur bu saaga waajur jàmbur ñëpp am waajur boo saagaa waajur jàmbur mu saaga sa waajur mu ngi mel ni yow sa waajur saaga leen loolu la yonent bi parce que yow tax ñu saaga sa kon boo respecté sa waajur bul wax wala nga def lu tax ñu leen saaga boo saagaa sëriñu jàmbur mu saaga sa sëriñ yow yaa saaga sa sëriñ boo saagaa yàllaay jàmbur sax mu saaga sa yàlla yaa saaga yàlla moo tax yàlla ne bu leen saaga ñiy jaamu xiram su ngeen leen saaga yàlla waaye yéen tax ñoom ñu te boo fekkee ku yore bantab xiram di ko jaam bant boobu du tus te boo ko saagaa rek bu saagaa yàlla yow yaa xas kenn ndax bañ ñu delloo say kilifa xas boobu lépp loo xam ne dafay tax ñu wax sa kilifa lu ñaaw yow bu ko wax amul yow lañuy wax lu ñaaw moo amul problème waxal dëgg waaye nag bul saaga saaga moom dafa baaxul rek saaga moom baaxul bokkul ci waxtaan ak nu ko nit mën a layee nag baaxul dégg nga waaw am yoo xam ne lu bon lu ñu def danañ ko jéem a lay waaye saaga baaxul ndax xadis yi aay saaga dafa dafa bari yi ñàññ saaga dafa dafa bëri rawatina saaga boo xam ni dañ la koy delloo su boobaa yow saaga sa waajur hmm? muttafaqun alayhi wa fi riwaayatin benn nekk ñaari xadis yi benn la mu ne inna min akbari kabaayir naka bokk na si bakkaar yi gën a màgg an yal'ana mu rëbb maanaam mu saaga ajuru góor waalide yi ñaari waajuram xëy ñu ne ko yaa rasulallah yonent yàlla bi kay fa yéen naka lay rëbbee ajuru góor waalide yi ñaari waajuram yi xaala mu ne yesub dafay saaga abaa rajuli bàyyi góor fa yesub waaju saaga abaahu baayam wa yesub mu saaga ummoo yaayam ummoo yaayi góor fa yesub waaju saaga ummoo yaayam boo saaga waajur jàmbur mu saaga sa waajur yow yaa saaga sa waajur est-ce que yéen a may dégg kon bu kenn saaga kenn li gën a bon nag mooy di fooyee saaga xale yi ñoo koy njëkkee mais dafay dem ba ci ay mag da gis mag yi jëmm yoo xam ni kuy foog sa moroom da koy saaga ndey xam nga loolu tamit kenn xamul nan la nit waroo jël sa waajur teg ko ci degré boobu bu nit di foog yow foo mi mooy saaga sa waajur nga nangu ko yaa bañ say waajur kon bu ko fooyee ci ba ngay ndaw xëy gis na loolu seytaane la rek xam nga toog jël wax ju ñaaw génne ko génne ko yow nit la tooñ lan ma def naqadal la nga dem ba ci baayam wala yaayam hmm. saaga ko wala ci bàyyi jàmbur yaayi jàmbur lan la la baayam def lan la la yaayam def lan la bàyyi jàmbur def lan la yaay jàmbur def te nag léeg-léegi nit suufe waaye bàyyam kenn du ko laal de ah xamoo ki ngay saaga bàyyam kan la léegi nit suufe moom mais yaayam kenn du ko laal nag bu la waa ji tooñee nga dem saaga bàyyam yàlla la yow parce que yàlla dafa fiir ci bàyyi kooku bëggul nit ki kan mooy waajuram xamoo wëlli lam du wëlli nga dem wax ko wax ju ñaaw yow eh, yaa ngi aral sa boobu mën a saaga sax ku am xel du ko def saaga ñaara ci nekk mooy tooñ ku la defut dara tooñ ku la defut dara ak dugal sa bopp ci danger mooy man ngaa laal wali yàqu fa bay laa yoma din moytu leen saaga seen làmma yi dinañ ci génne wax ju rafet yàlla nee na wa qulu linnaasi xusnan waa am na seen daa yoo xam ni boo defee dara buñ lay dóor mhm. yar buñ jël rek waxul naasi us us nan us nan lañ lay cawee boo waxee wax ju ñaaw bu yar bi dal us na lañ koy boole waxul naasi us nan xam nga xam nga am na ñoo xam ne buñ bañee wax us nan bu métti rek ñuy wax us nan ñoom <laughs> ah yar nag ci diine la bokk dégg nga mais waxuma dóor yi ëpp dëgg yàlla am na duur yoo xam ne dóor ko nit baaxul dafa xaraam mais yar ci la bokk dee leen wax wax ju rafet bu leen di saaga ku fonk sa waajur doo saaga bu la di tooñee mën nga koo fajee nu nekk ba mu des saaga ay waajuram parce que ay waajuram defuñ la dara bu leen fooyee saaga seen biir di kaf ak nit rek saaga baayam wala saaga yaayam muy ree wala mu delloo la ko bon ngeen yéen a def lu dangereux lu ngeen xamul rawatina nag ci ay mag bu kenn nangu ñu saaga sa waajur lépp ba mu des saaga nañ la wax lu ne mhm. waaye bu ñu laalee sa waajur nag nga sa xol laaj waxuma la nga xeex de mais faj ko ni ci yoon bi mu gën a rafete mhm. boo dee xale nga dem boole ji ko boo dee mag na nga am fulla ak faayda boo xam ne yow nit mën na laa wax lu nekk mën de saaga kenn du xarit ak yow ci saaga sa waajur hmm? loolu du xarit kon bu leen ko nangu dégg nga te ku baax it du saaga ku bëgg yonent du saaga léeg-léeg nit koo xam ni fii lay téye kursam ci la wérde yu dul jeex bu julli jotee muy julli mm-hmm. bu paree di saaga mm-hmm. te yonent du saaga la gën a bañ yow bëggoo yonent boo ko bëggee da nga koy rey inna al muhibba liman yuhibbu mutiun day topp ki mu bëgg boo bëggee yonent da ngay bàyyi saaga parce que yonent moo ko bëggul mm-hmm. moo ko aaye waaye mënoon yonent la gën a lépp jël ay yàlla di leen puugarewoo jël nit ñu baax di leen ba pare di def luñ bañ bëggoo leen boo leen bëggoon roy leen moo ci leen saaga dégg nga waan abi muhammad jëlee nañ ci abu muhammad jubayr bun mutim anna rasulullah yonent yàlla sallam qaala wax na laa yadxul du dugg aljana aljana xaatiwun aju doog mbokk xaala sufyaan wax na fii waaye di ci nettalam yaa ngi rum namu xaatiwun raximun aju dagg mbokk ku dagg mbokkam du dugg aljana muttafaqun alayhi ta aljana na ku ne bëgg na ko mhm. damaa xam na ni fii ci àdduna rek yenn problème yu ndaw rek dana la xaw a làggal xam nga làggal da lay sonal de aljana ku ko ñàkk yëg ne nga loo yàq ku doog mbokk du dugg aljana waan abi Iisaa jëlee nañ ci abu Iisaa mooy xadis bi mujj bi bun Somba an nabi mu jëlee seen bisalaam qaala mu ne inna laa naka yàlla taala kawe na xarama xaraamal na aleykum ci ma bëgg a tudd yii yàlla daf ko xaraamal yonentu nee yii yàlla daf ko xaraamal benn bi mooy xuquuqul ummahaat dëng nga yaay yi ndeysaan waajur la wax waaye fii yaay la wax ndax yaay moo gën a néew doole mooy sa yaay ci bàkkaar yi gën a màgg la bokk mooy nga def te soo ko bàyyi woon doo yàlla lii soo ko bàyyi woon benn mooy yàlla nekkul ci nga def ko sa xol waajur di tàng bàyyil rek ndax gërëm loo leen ndax jaamoo ko yàlla wala nga bàyyi lu tàng sa xol waajur te boo ko defoon benn moo yàlla nekku ci defal rek dafa am loo xam ne nit da koy def du pour moom pour waajuram yi la pour waajuram yi xam nga li gën a fort mooy lañ jàngoon démb nit takk soxna waxuma bëgg takk soxna de xam nga léeg-léeg dana bëgg takk soxna waajuram yi d'accord waaw yow paa yi paa yi dañuy soof rek nah. nañ dem ci keneen mu may ñu xolo xolo ci xolo ci luy rek ah nah. loolu lañ bëgg a gëm loo xale yi tey mais loolu du dëgg nit takk na soxna muy abdoulaye doomu omar ibn mu boole ma yonent ci yonent ne ko fase ndax topp sa waajur mu ne ma bàyyi ko mm-hmm. si baaxut waxuma dafa bon waaye daal gënul ci Abdoulaye Omar ne ko bàyyi ko taxul nag fase baax mhm. waaye nit danga war topp say waajur ba ci loo xam ne ni lii bu doon doo ko def mais ko def ñoom léegi nag ku takk ñee nga fase ku bëgg a takk rek ñee la bu ko takk rek xam nga sa waajur bañ na defal nànk rek bu fa nekk naan da ngeen di jéem gàddaay ak <laughs> da di jéem a oto dem ak da ngeen wuti waa yeneen kilifa yu leen mayeeg sëy bu métti rek ngeen fay am. sa waajur lu mu bañ rek arrêté ndax moom te bu doon yow doo doxalee nii waaye moom moo tax nga def loolu bu dee moo yàlla nekkul ci laa wax kon dëng yaay ci bàkkaar yi gën a màgg bokk ak lii jikko ju bon a nii boo mën a am ak bañ a def li la war waxaati ak laaj loo soxlawut xam nga manaan ak xaati boo ko doon firi lu muy wér mooy nga xam day encaissé waaye du joxe nay piir moom moom indi rek la xam <laughs> andi moom lu am rek waaye joxe xalaatu ci dara andi rek mooy nitu intérêt yoonu soo ko aaye wa man an waxaatin mooy nitu intérêt moom boppam rek ko ku muy jëflante moom moom na jekku rek waaye yow booy dee sa sa yoonam nekku si du dimbale kenn li ko war du ko def te day bëgg jël akam ba sëkk loolu mooy woo man aan kuy bañ a jox akam wa ci tey jël kuy bañ a jox nit ñi seen ak waxaa ci tey jël akam ba jeex takk andi rek la xam andi mu ne ci dara xam nga lu boo nga noonu de am am nañu mel noon nag yow boo jë boo gisee ku mel noonu yow it deel encaissé rek bu <laughs> ko nangoo jox dara parce que moom duy joxe bu ko jox xam nga bu ko ñëpp defee noonu bu yàggee mu jox nit ñi seen àq parce que mënoo ñàkk jëflante nit ñi te yow sa dund mooy encaisse rek encaisse boo waree fay nit sax loo xam ne moo ko moom xam la sax danga nga seet noo ko négocier wala nga yoreel ko te yow lu la nit war a defal lu manque nga coow ne nit ñi def ni ngay def rek bu yàggee nga yaru yàlla dafa xaraamal kuy encaisser te du joxe kuy bañ a jox nit seen àq te moom kenn du ko yoreel dara ci àq ak bari nag bëri na koo dégg maanaam dafa compliqué xam nga ñoom noonu la ñuy lay man damaa compliqué de <laughs> waaye kan yow boo compliqué nit ñi compliqué rek <laughs> pourtant nit ñi mën nañ laa ñàkk dara du xew nit ñi rek comme nit ñi non man damaa compliqué man damaa naqari dara mais kenn du ma yem te pourtant de ni mu naqaree dara ni mu compliqué noonu la ma lay tooñ <laughs> du du jox kenn àqam. mais wala mu man damaa ñeme dëgg te kenn du ko wax dëgg man moom dëgg moom dama ko ñeme moom man ku ma dama lay wax dëgg te nag boo ne ko sa bët bi suufa si mu mer boo ñemee dëgg dangay ngay ñemee si dëgg ah, bu dee dëgg rek nga bëgg da ngay ñu wax la ko comme yow ni ñu koy waxee waaye ñaareel ñu bari dañ naan damaa ñeme dëgg mais kenn du leen wax dëgg ñoom ndax boo leen waxee dëgg jot leen te ñoom ñu ne la ñuy sañee wax nit boo sañee wax lu ne nangul ñu sañ laa wax lu ne est yaa ngi dégg bu dul loolu yaa ngi bokk ci nga xam ne man an waxaati indi rek indi rek waaye ñoom duñ duñ duñ ñu joxe mukk ba woo dul banaan ak suul doomi jigéen loolu si jikko yi gën a suufi la bokk yaakaar naa ne ku nit sax du ko def arab yi bu njëkkaan bu ñu amaan doom bu jigéen lañ ko daan gas moom kóol ñu suul ko loolu lépp seen ñaaw su ko defee suul doom yi jigéen ci bàkkaar yi gën a màgg la bokk moom la alquran wax wa bu jigéen bu ñu gas suul ko bu yomal xiyaamati yàlla dana ko dekki laaj ko lan nga def say waajur bañ teg la li ban bàkkaar nga def bañ suul la loolu loo ci déggee mooy loo def sa doom yàlla dana la ko laaj nit ki du yaa ko jur rek loolu neex ngay def xam nga lislaam mooy dina ju yoo xam ne nii léegi-léegi day faral doom sax ci kaw waajur bu doom ji amee dëgg waaw bu doom ji amee dëgg lislaam sa doom moo la war a topp waaye taxul lu neex nga sañ ko def sa doom nag moo tax loo def sa doom te waroo ko ko def bu yomal xiyaamati yàlla dana ko laaj dana ko laaj xale bi lan nga defoon say waajur bañ teg la lii suul doom yi jigéen yi ci bàkkaar yi gën a mag la wa kariha sib lakum ñee leen xiila waxeef nañ wa qaala ak wax na lan mooy xiila qaala xiila qaala mooy nettali lu la leerul ñëw rek occupé garam place sa waxee mooy diw wax na diw woon ah gars wax nañ ko de gars wax nañ ko de diwa ko wax de yow li nga wax ni lu si nga ah ko wax xam nga loo amul preuve waroo ko wax qaala wax na Mhm. nettali waxi jàmbur la est que dëgg la ah man de leeru man diwoo ko wax de xii la waxeef nañ ko moom xamoo sax ku wax ah dégg naa jaay yi de for nañ ci weewu bëy dañu ne nangam weewu <laughs> weewu weewu bëy weewu mooy lan weewu bëy kay xam nga ne waxu dëgg <laughs> for a nangam yàkkamte joxe information mhm. yow affaire bi leeragul sax nga ne for na ah, for naa ci weewu bëy dina nangam mhm. hmm? te information yooyu nag mu gën a bonee ci ay kilifa ci nitu yàlla ci ay boromi xam-xam ci nit ñi ñooñu leen gën a gaaw a yàkkamtil tasaareel lu bon loolu seytaane la bu la nag ne baax nit ñi luñ dégg ci yow rek gaa wax ko ah <coughs> ay yënga ne di def naan ah, gaa gaa wax nañ ko de leeragul la waaye tasaare nga ko loolu mooy xiila ak xaala mooy nettali waxi jàmbur wax joo xam ku ko wax mooy xaala wax joo xamul sax ku ko wax nga nettali ko mooy xiila koo gis muy nettali lu ko leerul fenkat la ndax la muy nettali ay fen la te kuy nettali ay fen yaa ngi fen est-ce a ngi dégg loolu mooy xiila ak xaala wa kasadu su'aal ak bëri laaj lislaam dafa bañ bëri laaj mooy laaj te loroo gis nga jullit dafa war di ñaq di jariñu dafa war di liggéey di jariñu dafa war a wéeru ci yàlla ay ajoom mu di ko faj ci góorgóorloom waaye jullit waru nekk ko xam dafay tàllal loxo dimbali leen ma saa su nekk moo tax ponkal sax lislaam dafa sib sarax ko soo sarax ko est-ce ngi dégg ponkal mu ànd ak kattanam ànd ak wér-gu-yaramam dara dalu ko bu mën a liggéey dañoo sib bu la yalwaanee nga sarax ko parce que yaa ngi koy dimbali si caaxaan pattoo làggiwoo feebaroo dara dalul la nga mën a liggéey nga ne da ngay yalwaan demal liggéey demal liggéey même boo yeenu bagage jàmbur ñu fay la moo gën